ngir gis nga Ibra faala ngi ñuy faale te xam ni kenn daawu ko xëy di faale ak Ibra faati mi kenn dul fàtte te xam ni dee saa ko dox di fàtte ak madulumbe mi le kenn dul yàbbi te xam ni kenn daawu ko sax bay yàbbi ak doomaanta mel ni jant te xam ni kat mi ngi meloon ni bant aadama ji yaa ko defoonu sàll yal na ko yàlla dolli may gu sell masamba joobi ta ngi dee fi joobe te yaa ko may may ku ko dee fi joobe te if la saarit yaa ko fal may ko ngërëm ba képp nit di ko siyaaraaka gërëm waroon mi may rekk nga am amoo ku bon gaa yi ma tudd ak yi ma tuddul yépp a gën ñi nga defar mbàkke mu neefu leen a lim ci aw kayit mu neefu leen a boole xam defar nga gaa yoo xam ni sax leen defar nga gaa yu la xamit nga xam leen defar nga say bokk defar aw jaamur ba ñépp jàng jàpp nag sa njaambur yaa tax bawal ak i kajoor ak njaambur di def yiw ku la sikkal du jaambur ak cant war nanu du wér nun ñi li mu nu war war li mu lay war a ko raw war nanu laa sant bu wér yow ban ba nga war a sant yàlla ak yoneen ba sant nga gat sant gu kenn santul waande yëgal ni it samay gi tuutul sang bu nekk yàlla may nekkoon may waande mayul ab sang may gi mu la may sanga bu dul yow yàlla ay yëf la ko may yow nag dalaa sopp ba jëmmam la la may bu yàlla doonut ndaw ma xam ni yaa ko jël sang ya nag fa bi yëfam séddoo ko jël moo yow mi jël jëmm ji nanga koy sante xanaa di sant ka waree luy sant santal te santaane liggéeyu sant te ku la sant la si nanga ko sant fam naa samay ngir jox la dimbulee si la te ku ma déggal dikk dimbali si la woo naa samay rakk te woo samay mag ci sa liggéeyu cant bi ku dikk jag woo naa samay mbokk yu ndaw yëpp ak yu mag ci sa liggéeyu cant bi ku dikk bég samay mbokk yu góor ak ci yow mi jubalu góor ak jigéen ku dikk nag ku dikkul boppam man dikk naa te maa ngi lay topp ak a gëm te maa ngi muslu lépp lëf lu dul yow ngir lépp loo xam ne du yow du aw yiw musal ma man ci lépp lëf lu dul yow te musalal ci man itam lu dul yow musal ma nag ci yow mi gën lu dul yow te may ma nag ci yow mi gën lu dul yow man naa la mos te bu ma mos lu dul yow te naa la xam te bu ma xam lu dul yow naa na ci yow nga ne ci man te sol ma baa feesa fees ak say ngërëm nga yor ma fab ma dugal ma ci sa xol bu sell bii te bu ma génnati sa xol bu sell bii fabal sa bopp it dugal ci sama xol te ricc bul génn te mukk sama xol def ma sa mbég mu rëy te def ma sa ngërëm lu rëy rëy ma di sa mbég di sa ngërëm lu ma gërëm nan ko gërëm te loo gërëm naa ko gërëm ku ma gërëm nang ko gërëm na ni dajee dajee dajee daje ci loo gërëm te bu nu noppee tee daje bala nga maa woo naa la wuy si far yow bala ma laa wuy si nga woo ma far yow bala nga maa soxla ma far la soxla bala ma laa soxla nga far ma soxla foo jëm ma jëm fa fu ma jëm nga jëm fa foo jóg ma jóg fa fu ma jóg nga jóg fa nga di ma sant faw nag ak a gërëm ma di la sant faw it ak a gërëm tey noo ngi lay sant ka wóoloo ka gërëm te ku la am wala saxal cant ak ngërëm tey noo ngi lay sant ka wóoloo ko gërëm te ku la am war a saxal cant ak ngërëm yaa sedd ab guy yaa dalum xel warut nga yow waaju la for sant xasal te ku la takk fu mu jëm gën foofa te dal suuxal gaaya waajoon foofa te ku la doo ko gis teg dara lu yàgg-yàgg doo ko gis fajit dara maa sa dëgg dëgg dëgg yàlla te yaa waral mbàkke ma sant yàlla boo ma ba woon ak yàlla kon am ci ma ngir sama bom gu rëy gi ak ndof gii ma def man sant naa la nag ma santal yàlla yow mi leeral sama digg yàlla bismillahi loo daa jañax dem na loo daa ñot di ñëw na jógal na jëm ci yàlla bu wér jóg jëm ci jot na bu wér sa ñàkk nee na melas sa cant nee na jalañ tuubal lu bon sant jaamul yàlla jaamu gu wér amal xel ak fula am ak wayte na gu fit te dëddu àddina biir ak biti dëddu gu bir ak góor dafay dëddu biir ak biti àddina jii te jublu yàlla bu wér lii rekk rekk di ngor lay dëgg dëggati sax koo xam ni faw mu dee lu faj loram war na koo doy sëkk xéer dana lor xëral ci yàlla te bul xër yow ci àddina ji dafay naxee que naxal yàlla rafet mat a xër doylul ci àddina mboolem loo ca am na la doy loo fay xeloo bàyyi dem ñaawal ca mbir lu ko jar jamal ci yàlla te xër caa xër ba doo ca doyal bul doylu mukk ci moom ak ay mbiram bu ko war lu tàng-tàng na ngay def luy jariñ ak a daw luy lor te bul baw yiw bul jëm ci lor na nga dér déral te bul daanu daanal faw mbaa nga taxaw mbër day taxaw ak a daanay mbër ku daanu du bu daanu yàq nanu waata jël wàcc bu wér ëpp jëpp làmb bu wér da lewaki ndam sunu kër ku yàlla làkk ngelaw lor fawu jot tamit dët nun ñëpp yàlla nanu làq ak jàmm làq gu wér sëriñ bi nëbbu nga saabon di ba dee fi ma jox nëbal bonum nit ku may jox la ba dee fi ko jox yaa ngi demoo ma fabul woon kenn du xam ana man bay jàpp la di ma jox tey topp loo ma lu ma wax yaa ngi ite boo ma fabul woon kenn du xam ana man bay jàpp lëf di ma jox tey topp roole ma wax defar nga saa mbir ba gis naa gaa yu may joxe mbir te xam ni ma gis kuy dox ba geesuma sax moo mbàkke man na ma lay santeeti ak na ma lay jàppeeti ak na ma lay taggeeti yaa mata sax saanaw la yaa ngi ma fii neexal diraama ka daw yow sa murit du torox ngoo ngir doo sëriñ bu na sax saanaw la ngi ma fii daw yow sa murit du torox ngir doo sëriñ bu na sax dogan ko nag yàlla ay yow gàcce war ma gu rëy goo xam ni kon fu ma jëndootee ku nit ñi tasa yow yàlla mii ngay liggéeyal rekk lay mën a fay te waaju lay jéem a fay day mujj teeni ba sax bindee fi yàlla yi teeni a nëbbu na ngir sa barke yaa sotti sottal kenn gisul lu la so leeral nga xol yi te leeral gox yi benn desul gox yaa ngi lay joobe taaxum diine yaa ko tabax yaa ko wala sotti ko yaaram bu tedd ba kenn dootul si deeti wala say wax ni moo yaa fopp ngir yàlla bekkoor ak walaf ba mu sëf biiru walaf yàgg naa bekkoor ak ay laxala la dee fi wax barke yow nii yaa ko yor te budul kon ak ragal la dinaa wax lul ku nekk di lox naa noppi man ndaxte mag muy làqu mat la fésal yaa ngoogu waande dinaa wax lul ku dégg ni tax yaa saf xorom sapp yaa saf diw te yaa ma safal yaa tee ba gaa yi torox yaa andi njambaara ku fit kenn dootu ragal yaa dindi fen indi dëggit kenn dootu la yaa andi teggiine ki yiw kenn dootu suruf yaa dindi kii sant kenn dootul xuloo ka ba ma ma ne fa laa sant ndax yow lii nga def dafa rëy funkar yi lee ngi taxaw suñ att yii ni bayax suñ jàmm jaa nga di way kenn musta gis suñu ay kenn musta gis lu fi xew mbaa ak fital gu fi rax te ay gisangul wexul yaa war di bóote la yëf da ngay yëram gone bu jooyit nga dal di ko nax guroo ki war gaa ci suukar kër ngay kay gone yow defar nga tey gone may leenu yaram wu ne tax doo teg nitug yarte koo ci yaa ko gën gone yi ku bëgg raw ku fi daaraw jàngu baa ngi bérëb kuy jàngi weesu la moo fum jomm jom ñi di jëm forkat bu lay weesu ngir réerit nu for la te sex dex doy na kuy naana kay sangoo ka fóota ka duy nan soobu dex gi leen ngir dex gii du jeete du nax sunu indi rek mbiri mboolem gaa yi taalibe yii jàppal nu noonu la ko jox inna allati farada alayka alqur'ana la radduka ila mahadin yal na nu am ci sunu yoon ñu le taam ci yépp yoon tawféex ak cant amiin te mucc nañ ñi bee ci koom koo xam ni kii noo ko gane yal na koy ngërëm gane yal na ko barke gane te bañ a tee jóge ci moom képp ku jóg di nu gane mbaate nu jóg di ko gane yal na yàlla far ma ne gante bëggal nu ba nu luum mucc njëriñ yàllaa ko yàlla na ko faf lépp bu wér jox nu ko jox gu jenn lor néewul te dolli nuy woom yàlla na ma am ndolleen lu rëy ba joxe nañ ndolleen lu rëy lu rëy rëy ba gën a rëy lépp lu rëy te far ko tiim sëriñ bi dolli nu yu baax yu bare ak ñu baax a baax ñu bare ak ñu cant gu baax bu yéemu yow amoo moroom naa teg lu rëy ci sa loxo lu kenn tegul ci sa loxo jëri ci tàllaxal yoxo sakkul lii fa sa def nuy murid yu gën a gën yu jigéewul dara lu bon te def nu ñoo xam ni lu bon du jëm ba jóg mukk ci ñoom def nuy murid yu gën a gën yu jigéewul dara lu bon te def nu ñoo xam ni lu bon du jóg ba jëm mukk ci ñoom soril nu lépp nag lu bon soril nu luy taxa bon na sunu witte kawe nun ba jàllaay soxnaa ki doom nanga nu def ku dëra dër koo xam ni kii moo gën a dër mboolem ku ngëpp yow bu dër ak xolam ak yoxoom defal lu rëy ci sa yoxo loo ko bëggul def ci yoxo ma fab ko teg ci sa yoxo te bañ a wax dara ni xiim tabe nga am nga lu rëy ku am lu rëy yaa ko ko may te eg ëllëg na nu may mucc ak njariñ fa wasikoom sëriñ bi gëm nga maye gëm am nga ndam it maye ndam yaa may gëm ak ndam ku ko am yaa sedd xol terali xol yaa nga nu biti biir ñun ñëpp laaye nga nu biir yaa ma ci biti ma ci biir noo ngoogu nun ñëpp yoral sëriñ bi yaa gën alal yaa gën barab gënu nit ku way ci yow mu ci am mboolem mébét ya asal yaa gën ci nit fakkanam yaa gën ci nit barabam yaa gën ci nit mbokkam ak léppam ku wet di xamul kuy bëgg boppam a kay wut kenn kay fexe lëf mbaa muy fexe yeewi kuy jëm fenn daf la fajal man nag ma dimbali nag baa fàtte saa bakkan nag saa mbokk ak saa barab ak lépp man nga defal may ma cofeelit ci yow guy fàtteloo sama xol ba neexi addina ak alaaxiraa ki mbugal saytu sama xol ba dootul fas lu dul sa ngërëm sàmmal samay cër ba dootul jëf lu dul sa ndigal jox la saa xol bi ak saa cër yi nangu ko yor saytul ma sàmmal ma jur gaa ngi ma jox la fabal sama xol ak sama cër yi yépp ak sama xel may dëkk faw ci yow may dëkk na ci sa xel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 def naa la wéttal ci àll kër te def la ndey bàyyi ak najaay sëriñ jaajar lu nekk asal dañal nu lépp luy lore ba mu soree soree sori xaw ba leen luy lore du nu jotee ti mukk lëf ñodil ni it may yu bari ak sant yàlla gu bari ak jëf ju sell ju bari ak jëf gudul dañet ci faf musal nu fawu ci kañaan musal nu it ci ko añaan doyul nu walif di añaan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 fawa te dolliku yéwén akub wér ak jàmm ci yëf ñang lenub dëgg bu wóor ba lenn luy lor a ruur dootum lor dootum ruur nuy sant kay jàngi araf nun du nu bu ñu nu lor te bu nu bu ñu nu war bul bàyyi kuy lor ak a wor ci sunu buntu muy xaraf sunuy barab na jaga-jag faw nu nu jaga-jag lu bon te bi mu ca kay am jërëjëf wuññi nu wuññi sunu xol jëme ci yow ak sa ndigal nu jëm ci yow aw sa ndigal faaw di wéy bañ a tërëf saxal nu nun ci sa ndigal guddal sunuy fan wéral sunuy yaram nag te seral xol yi te wet nekk lëf alhamdulillahi rabbil alamina ma jóg man sant feeti sëriñ bii may teral te ba moo jàpp àddina seppil may loram ba mu set mu jox ma nag lu tawat nekkul te def ma jiba day jàpp ay ndëkk yu rëy yoo xam ni ëpp na xel di sol ci saa xol mi ak saa kër gi sépp suba lu jekki waxtu ba woowee waxtu ay tëfabul lu yéemu jox ma du man koy deeti sikkaka ba kii sell ngor sell ay jëf sell wala reyit kii kenn gisul ku ni mel kii daala jot daya ba mayam yi day mela mel nii waa mi faw fi man du guddi muy dog du bëccëg maaka waaru ka ba xéwal gi day taw fi man ñii fépp saa du teet maa ngi ni xëj ci mbég maa mucc ci mucc ba saa kër du wow sama xol bi it du tàng ka wow alhamdulillahi santay mbir ku xam du ko ba daqal ngërëm yow ba jot koo jot ba dootu la raw kon yàlla dootu la raw saytaane dootu la jot ku dog si xelit bay dàqalëf lu ko moy lu yàgg-yàgg dafay delluy jaloo katawat fexee la mel ni dërëm ngir ab dërëm ku ni mel noppal sa bopp neta noppal waa di sa mbirit fexee la mel ni dërëm ngir ab dërëm ku ni mel noppal sa bopp te noppal waa di sa mbirit doo gis dërëm naa boroomam tee nga jënde ma lëf bu koy fasit du ko naa ay waaji mbaa duma rot rayal sa bopp te bul dekkeeti kon te nga jot ngërëm lu mag la te raw lor nag ba dootu la jot sëriñ bi am nanu ko neex fawte lépp lu nu neex loola la yàlla nay lu ko neex te saf ko loolit jubu ko nun ñëpp yàlla nanu ko saf sapp te sax ci lu ko saf te ñu sax ci lu nu saf te saf nu saf gu ràññiku yàlla mu def mbégum xolam faw te sax ci ndigalam tey sant nag ci dogalam te gëm ko wóolu ko jako lu nuy bégal na koy bégal lu nuy bégal na koy bégal yàlla dogal lu nuy bégal faw aka may lu nuy dogu koy bégal na nuy bégal lu na koy bégal yàlla dogal lu nuy bégal faw aka may lu nuy nay bég ci nun muy bég ci moom muy ne ci nun muy ne ci moom musakkinu Musa ci moom jëf ju nu jëf mu sant ko sunu digg ak moom it na leer te diggam ak moom it na leer faw ci wi weer ak ci weer wu nekk yàlla mën na ko na sunu diggante rafet te bu mu am seen ak tawat bu mu am it seen ak yaatu ci yow jagle nu ko sallu ngërëm tarax nu ko santu ngërëm sofal nu ko te dëgg fab ko may nu ko réew nga neelut fal nu ko aw gaa yi ci sunu suuf mun noo nii ne ci sa suuf nu bokk na ne ci sa suuf ku ne ci kaw kawe nga ko kawe nga yow ñu féete kaw mboolem ñu féete ñëpp kaw xamal yaa ci féete kaw ku ma sa rey suuxal nga ko roofa a roofa roofa roof ci nun li ndég yi ci enu xiif nun deenu may jàmma ka wuuf foora ca sif jaañax nu ko boo jamatee may nu ndawal te may ndawal ku lay dawal bu kenn ñàkkatiñ ndawal ku ne ci yow dimbali ko ku nekk barke na ko dal xolam ba sedd xel ma dal mu ne fi as mbarab dal xelam ñu gëm ko sopp ko mu di la sant ka bége ñu di ko sant ka bége nga fal ko feeñu ko tigi muy dëkke dootu folliku yaanu fegal lu dul njariñ ba noppi jébbal nu njariñ yow rekk am ci nun njariñ lu ñuy ragal di ni nga ko yaanu faral géppug tawat yaanu fegal géppug tawat ku la xamul tawat te lu mu am ñu nangu ko teral nga xol dalal nga xel dolli nga nag baax ak alal loo digle yal na mu gënal am am bu ñàkk dul tagu loo bëgg nag mu di ko def nanga nu may nu di ko def te loo bañit bu nu ko def musal nu yow ci jige ko lu dul sa ndég bu nu ko man bu nu ko def sàmm nu nun li ndég faxu ci nun saxal nu ci yëkkatiku def ma ku sax ku la safoo te def ma fawu koo safoo ku sax ci yow di la safoo jubu la nag nga jubu ko yow Bamba am nga loo joxe te soxla woo lu dul joxe yaa gën baaxit kuy joxe saa yoxe yaa ngi feesalal saa xol ji duy ko ba mu fees ci yow te duy kër gi mu fees ci jur ba kër gi fees fees dell ak alal ji seen bugal addina joo yiwam wépp fegal ma aw ayam yépp te may na fu ma jëm di mucc faw waka musal nun may nu ngeen ji addina te jox nu ngeen ji àjjana nan gën ku nekk addina te gën ko àjjana wuyul nanga nu may nu sutu fan képp ko nekk nag te gën fee baaxi jëf faw te gën fee sàmm gën fee na nanga nu may nu sutu fan képp ko nekk nag te gën fee baaxi jëf fopp te gën fee sàmm gën fee sell xol lañu defan te soppee ba ñu ni mes caal ya faf dëdd mboolem soppee def ko ci nun te teenu lañu defan te seeni mbir ba ñu ni xërr seeni jur te ca ni xërr seeni kër def ko ci nun te saytunu lañu defoon te seeni xel te def ko nag ca seeni xol na nga ko def ci sunu xel ak sunu xol te sàmmunu lañu defoon te seeni cër ba ñu amum yar te sawar te duñu yàq tey defar def ko ci nun te santunu jaglu gu rëy gañu defoon ci ñoom itam ba tax ñu gën ñëpp texee bu ñu ko bon def ko ci nun te dollinu xa baax yàlla yene woon ci ñoom itam ba tax ñu man loo xam ne nit daaw ko man def ko ci nun te wattunu mucc gu rëy gañu amoon ak may gu gañu amoon ak pal gu rëy gañu yoroon may nu ko nun te soppunu yeewu gu gañu amoon ak xam gu gañu amoon ak ndam lu rëy lañu amoon def ko ci nun te wallunu pas-pas bu rëy ba ñu amoon ak wayu gu mat gañu amoon ak wayu rëy wa ñu amoon def ko ci nun te jublunu farlu gu sax gañu amoon ak ngor gu mat gañu amoon ak xel gu rëy gañu amoon def ko ci nun xoramenu cafkeelu rëy lañu amoon ak suru wu rëy wa ñu amoon ak neex a gis gañu amoon def ko ci nun sasalenu lañu amoon ak la ca def def ko ci nun bu leen nu def bu nu desas lëf bu nu def matal nu këkk teenu yëkki fasoo topp ndigal yeewul caaj topp ndigal ñett baram mooy fa ndigal moo fa gënul topp ndigal sa sang saa su ne ñëwal nu bokk mbaamu xob alal jox la ko mbaamu nu jëlal saa soxna sii ma ba bañal yii yett bañ koo ko rafet waaju ko bañ def lu rafet ku yow bañ ko bu rafet ku ko bañul ndaw la asal alal ji toog sëriñ cas jox la ko ñëpp di ko gis jooja alal du tekki tus matu la bëgg du alal lu barke nekk di alal ndelamu nekkul du alal sëriñ ngërëm laa di alal ngir ca barke nekki fal wutal ci sa sëriñ ngërëm te bañ a lu dul ngërëm dawal ba jot ci ngërëmam te bañ def lu ko tuxal bari na waaju am ngërëm te dellu nekkati ngërëm ku defatul lu ñu gërëm nak ngërëm murit fëxal bul bokk yow ca gaaya far seeni ngërëm ba desalor ñoo ñële ñoo perte bu wér te ñàkk ñaare bon bonal ab dog bu ne tasu juróom joxe ba nangoo fu juróom fasoo ko ca joxe juróom mu far ko nangu defi njël koo xam ni soq na juróom def na lu muy réccu ji moom ku xelu day mu ñu juróom ba ñorle door a soq wal awal ndigal rekk te muñ koo seeru tey mu bañ a muñ bu ëllëgee faxu mu muñ lu mu mën ak lu mu mënul boo dul joxub sëriñ dara te doo ko teg dara dara gën ko ko dul jox nag dara te di ko laa ka la jël ñàkk a joxub sëriñ dara gàcce la teg ko nag dara ak moy la bul tege dara koy tegalef dee ko tegal ñàkk a joxub sëriñ dara gàcce la teg ko nag dara ak mu ne la bul tege dara koy tege dee fu ko tegal ku joxewul dara dara te laajulit dara dara matu la wax dara dara ngir loruwul jëriñuwul ku teg dee fu ko bégal dee ko dàkkuli mbugal koy tege jàdd na ndigal teg tab sëriñ la waxuwul ku tege dee ko bégal dee ko dàkkuli mbugal kuy tege jàdd na ndigal teg sab sëriñ lépp waxuwul la sab sëriñ jox la ko te xam ni laaju la ko ko fa boo ko it delloo ko ko doy na la ak bon xalamal murit bu delluwul gannaaw jokkoo dafay waral mu ñaaw njortu moyul murit gu ñaaw ku ñaawalit rafetalal murit da daa laajut liggéey tey bëggee bëggee ab liggéey te lu mu am liggéey joxe ko tey di lu ndigal yal na nu gën fa pang murit képp ku baaxoonu murit ak ku fasoo baaxu murit te gën a aw ko leen na nu am faw ngërëm tey dëkkee nag jëfi ngërëm fa wakka doon li kuy ngërëm te gudd fan sax ci ndigal fa yàlla nekk ka sori tuuta ko fam ngirug sori tuuta fa dem ngirug sori gaaye fa nekk gën néew fa yàlla nekk ka sori tuuta ka fam ngirug sori tuuta fa dem ngirug sori gaaye fa nekk gën néew ku bëgg a jublu foofale te bëgg a dem nag foofale te bëgg a yegg foofale na mel ni gaaya na jën yiw ku soxlawul lu àjjana na dëddu fawu àddina képp ku dëddu àddina ñu jox ko àjjana mu yeew ku bëgg jëmmi yàlla far na dëddu àddina bu wér te dëddu àjjana bu wér dëddu li fàddu ak li teew sëriñ bi yow daala fi ne yaa saytu képp ku fi ne yaa saytu lépp lu fi ne yaa xam njariñ may nu njariñ ginnaa ni koo fal mu falu te koo falut nag du falu ñi faluwul na ñu falu ñi falu dolli ko jigéen ku faluwul na falu ren ku falu nag na ëpp ren na ñëpp jag fekkee déwén te gudd fan man nga te sañ ku nekk may ko lu ko soob muy dégg kay sant katuub te naa la lépp lu la soob ma def ko yaamatub sëriñ ku bëgg am soxna su baax na ko may soxna su baax su koy defal lépp lu baax di ko musal ca la mu bañ ku bëgg am mbooloo mu jub na nga ko may mbooloo mu jub ñu bokk jub di def lu jub xéewal gi sax te bañ a dañ ku bëgg a am naat bu baax na ko may naat bu baax ku bëgg a sas ci yow bu baax di la dawal bu ko ko xañ ku bëgg a am jur gu bari na ko may jur gu bari te may ko cant gu bari waane wure yi nga waxe rañ ku nekk may ko lu mu ñaan sajal ko it tiis ak añaan musal ko ci ku añaan na ñëpp set lu bon nga jël na ñëpp baax a baax a baax tey def lu baax a baax a baax tey fas lu baax a baax a baax ku nekk jub-jub ga jafeñ ku ne defar ko ba mu jag nga ni ko yëkkat ba mu jóg faw ba dootu daanu nag nga ràcc fif jox ko mu añ na ñëpp jag bu kenn des na ñëpp am bu picc des na ñëpp wéy bu kenn des gannaaw a kay ñàkk njariñ nun ñëpp woo nga nu mu ñëw di bëgg kay ci yow njariñ ku mucc ku yiw am njariñ ma sakku àjjana file sakul ko saa ñëpp file sakul ko kuy jullit file te seglu fawu sawara sëriñ may nu àjjana may sunu ñëpp àjjana may ñi ra sopp àjjana te may nu dund ak sutura fagul nu àddina ju jag fawak alaaxira ju jag sunu tayek ëllëg na jag lépp lu jag sag defara may nu may nu ci barkeb gépp koor ak darajay gaaya ko mu ceg tayeg ëllëg bu wóor bu kenn dul sikk dara réeg ba nag bari tayeel du tee na xëy sa buntu teel tey teenu nag ci sa ngëneel may baree ci man lu ma def def ku tilim jëm ci dex ak sama tilim te ku baree bari tilim ba teggi dex di kasara dex du tilim te ku ca dem dal di fasanteeg tilim tuuba satal ña daa xiram di fooka naa ni sangara tuuba di buntub yàlla ba jëm leen a jëm ca buntu ba mu xëpp leen ni mayte ba loo xam ni na naqara nan sant sant tuuba tuub ba jot dayat canta ci tuub ku jot dayat canta ci tuub bokk ca gaaye faj dara bokkal ca gaaye faj dara bokk ca gaaye faj dara rekkay waxal nga faj dara te tekki lef lii sa cere ku yaruwul du faj dara du tekki it mukk dara yarul ba def ko faj dara te tekki lef am sutura yal na nu làq àjjana faw ci barkeb àjjana ak darajey waa àjjana te sori faw sawara njegam ndeyeg mu ni teg soxna njexee di tawat te bamba mi di gërëm seenu tawat du ma saf njegam ndeyeg mu ni teg soxna njexee di gërëm te bamba mi di tawat seeni ngërëm du ma saf bu ban ba mi gërëmee seenu tawat du ma saf bu bamba mi gërëmoo seeni ngërëm du ma saf ndegam damay soofa kay sa bax la ngir ni ma mel kuy wut ngërëm daana soofu nit ba mujj mu saf ku wut ngërëm mu sa soofal moo la mujj safal lu dul ngërëm lu mu saf saf ay mujjam gadu saf sëriñ bi yaa ngi lay jébbal naa la man sama mbir tey sàkku sa cant ngir sa cant rek kama saf ku mer ni meru may ree xul te xuloo may sant ngir yaa ma saf yow yaa amit la ma saf bu yàlla teema am sa cant ak ngërëmal waa kër gi moo ma gënal ngir boole gee gën saf bakkan bi xëy na di wa kaajoo kajoo ngir jur gi may faf di jox saasang bii di ko ba bakkan du nit dof la buy say kenn xamul lu ko jot koo mu topp bakkan waatal ni moo mata ba koo gis nutul bakkanam doo muy nutu nit ban baa ko not moo taxit tey mi ngi nii note ba not ba kanuk sëriñ ak góob taalibe kasare not ba kanuk sëriñ ay jóg topp yàlla te ba not ba kanuk muy tey jóg topp ab sëriñam mun naa defal mbaa bayil muy dox di def aka ba sëriñ boroomam da koy woo jox ko ngën ji ndigal mu ko ko nag joxe moo tax mooy ndigal mata ba na ngay murit bu rafet mbaa ngay sëriñ bu rafet ku dul murit du sëriñ ku yewwu dal di ko ba sëriñ dafay jox murit ba yu mu nangu ko yor ku nanguwul joxewul yiw nangu ay musiba loo bëgg buur a ko yor koo bëgg buur a ko yor foo bëgg buur a ko yor moo tee nga far bëgg buur njagam da ngay wut lu sakkan boo ñëwee ci garab bul fàq yat di xalat jàppal ca datt ba buur kon doomi googa garab ak reeni googa garab ak ker gang ak lépp ngay far boole saytu buur bul gàtt itte ku gàttul itte am mébétam ab rëbb day waa fa kay nëbboo ka yootaka diir bul yoqi bul yox yoxee kay rab rabee ka taxaw sa dog bi wal ko te muñ ab tar ba seeru sa wóor laajal ki jox gaaya woon ak gaaya tey yi nga gis te jeexalul xaajalul ku sang sedd nga suur sëriñ bi seddunu cër boo xam ni day toraxal ay waane ak géeja kiy duusam te yokku nu muur te feesalal sunu xol yëpp ak lu sedd sa xol feesal sunuy kere ki yiw dell ak sunu biir xëy naa la gaaw di sàkku wall gaawe ma yow ñu gaawe ak wallu walloo nag ci man sunu giir te yëkkatil sunu askan wépp fawwa ci man saa mépp mbokkoon na ngir man ne ab libidoor te yëkkatil sunu askan wépp fawwa ci man saa mépp mbokkoon na mel ngir man ni ab libidoor saa bépp donga na mel fawit ne jant bu jóg di leer a kay leera li maasam di loolu li ku xiyaamati man koo xam ni xam na ma sax te daama sopp fegal koy gàcce yow ak i dóor te may nu ay sët yu def ay awliya yu rëy yu maandu yuy jàng kay wir daaka julli di woor te may nu soxna yu am ab yar te taaru lewet rafet wax ak jikko ak jëf tey moyoo ji su góor te may nu daara ju ak kër gu yaagu rafet ak topp yàlla gu nangoo fak alal ak i wuur te may nu mucc ci lor pawak di musula ci lor fegal na it ay wu ñuy wàccam nawet ak i noor tey séer naa gan fi saa xol bii te nga ko it njagam du yaa yabal dàqal mu dem bu mu góor te boo xamee nag ni yow mii yaa ko jàpp yabal fi man dalal ko teral fegal ko it lu mu ngoor sarax nu ngi yàlla ak yonin ba xol bu rafet bu sedd guy bu dootul tàng mukk ka góor doleeti nu gëm gu yees ak cant yàlla gu rëy gu jëm kanam ba ba nuy dem àjjana yi mu si nguur feqal nu fan yi te ful wërsëg yi ful sunu jëf teg lor yi may nuy ngërëm xel xool nu soppi nu buur sëqal nu yi jëful wërsëg yi ful lor yi may nuy ngërëm xëy fal nu soppi nu buur sëriñ bi sab lar bu yaakaarul lu dul yow a ngi amul xamul mënul it tey bëgg nag sa ngërëm bëggul lu yow te xamul loo bëgg bam di ko def wutul lu yow te amul ay gët ba gis fa nga jëm wax nay wala waxi yaaram ngir ga sàkku sa mbég sol nay sagar dox ak i tànkam di gaari séram te yow sa mbég jafe ngir doo bég te yàlla bégul doo def te yàlla deful tablar du man lu gëlëm mu ngi yërëm tëlu tey waaroo ka yére mbiram waxte ko ndax naka muy def nag ba am sa ngërëm mun yàlla nan dund bay duy nee bilee ki dërëm di jox sëriñ bile muy nangoo këree ka gërëm yàlla nan ko man bala noo dee man gu setlu gu wér te def ko nag def gu ànd ak cantam ak ngërëmam te kët fa nuy tàmbulee lii ak fa muy xalayam lu gàtt gàtt na mat fanweeri at yu nu lim taat yi nii dund at muy mijj dikk na gën ma wey ni xaalis gënee xot ak sagar yu tilim addiya ak ay murit ak kër yu tooy ak jël ak bamba ak ngërëmam yii yépp yàlla na nu am am dëkk am dagga am bay reeki barke bu rëy ak fan wu gudd wu ànd ak toppatoo ndigalam saytaani yéefar jabar naa féqi reñ naxekat fegal nu gaayili ak teeni xayit fu nu jëm jinne ki njuuma ki waxteef ak lu lor di bawoo fegal nu it seeni lor ak luy loree loram kuy lor ak i loram ak luy lor ak i bu ndox ba fii rooti bun laaleeti mukk yaram bari lu nu wëlli si nag ak ki sunguf ak takk téere ki sox be jën di suul ak a gëm musal nu yow koo musal lor dootu jëm fu mu jëm bari lu nu wëlli di laajeeti jabar lu mu xam nawet yi nii jëm na nangoo nangu tey bari ndox lu dee fi bay na ni xos yéefar yi ne xaram teral nu jàmm fayal nu ay ba muy fay fay kamaj ba dootu nu gis sax mu ko noon saxaram ren jii na bépp julit ndég ndég mu jàqeexul nan am adiya te am ak wér te am sa ngërëm alhamdulilahi yow yaa gën alal gën nit yaa gën bakkan gën barab kuy jóg fi yow fu mu jëm la gën mu sopp la tey jekkeeke diglu ndigal loo wax nu def boo waxul nuy diglu daal ak a gëm lebal nga yàlla lebal yonen ba bor bu rafet bayal la ay yonnenam gàddul la pay ak i ndam yaa sànni say bokk sànni taalibee ki alal sànni kër ak sa bakkan ànd ak sa jëmm ji dem di jaamu yàlla ba am ay at te déggu la nit nit déggulit lépp ci yow rusloo nga ñépp ndaxam yow rekk a sell te sellal yaa defit la la war yaa gën sëriñ si nu daa dégg ak sëriñ si nu xam nekkoon nga ay at fu kenn nekkul di xiif ak mar di sonn kay muñ di wut yàllaa ka wut ngërëmam ba yàlla jox la ngërëm yonen ba jox la nga del si nag bi nu woo kay xettalee kay ram sabol na sedd ku buurul fay la lii nga jëfit yonen ba fay la boroomam fay la fay gu ko lem koo sant la bu deful gis ab kemam bu ko def te moonakat bu defee it ànd koo ki kemam ku yàlla nangul ku koy gàntooti daf la bu rëy ku yàlla jublu ku koy dëddooti rek ca gëlam tàggoo gënul nan bàyyi tàggoo murit du ko def murit bu gis sëriñam moo jaa ku xam fu mu jëm sëriñ bi may ngan yu baax mbàkke te may ngan yu baax may nu mu sàkk jëf ju baax te gudd fan bari xoram nu noo ngi lay sant bu baax di sàkku sa cant bu baax am nga sunu cant bu baax sa cant yàlla na nu ko am ñi lay gërëm dañoo bari ñi ngay gërëm bañ a bari musal nu nun ci yu bari te may nu sa cant ak ngërëm def nu ñu lay sant ak gëm far la gërëm am sa ngërëm nga di nu sant ak gërëm nu di la sant ka gërëm laq nga yow sunu ngërëm yàlla nu laq sa ngërëm tey ak ëllëg ca la am am gu rafet gu ñëpp xam yàlla nu bokk ci ñi sant te bokk ci ñi ngay safoo te bokk ci ñi lay jox seeni xol ak yi dërëm bokk ci ñi lay safoo ci ñi ngay safoo te ci ñi ngay defal lu baax ak a yërëm yàlla na ni dund ak wér di la gërëm te sax bu wér ci la nga sante bu wér te bare ay maye ki ndam yëkkati naa lépp lu dul sa jëmm ji ak sa ndigal jënde sa jëmm ak sa ndigal doylul ma walli si xéram fegal ma jaamu ay xéram ak képp kuy jaamu xéram fegal ko it ku fa mbiram jox ma te dàkkul ko ñu ñam xam-xam bu dul bi nga ma jox ak may gudul gi nga ma jox aw ma ca aajo maa ko wax li nga ma jox doy naa xalam jox nga ma ngën ji lu ñu xam may nga ma ngën ji lu ñu am jooyu ma xam jooyu ma am fegal nga mag réer ak ngëlam seral nga guy sama xol sa xol bi yal naa ko seral seral bu yéemu te seral xol ku lay joxe mbiram fegal nga ma jàq ak tawat may nga ma it may gu rafet dolli nga ma gëm gu rafet ku la xamul yée kemam boole nu ci ñi la xam boole nu ci ñi nga am boole la gëm te gudd fan bari xorom bañ nga ba am jaagi ngëneel jaji ba am teeni ngëneel xare ba am réewi ngëneel nanga nu may asakateel sa tooli ndég ñor na ba wow sa jaji mbég bënn ba saw mbàkke sa xol bi dootu wow mukk ka ñor rawe nga reel set nga ci mboolem tuuma yi génn ci mboolem coona yi tàbbi ci mboolem cant yi booleeli kaalaaki meteel nooyal nga fépp ba mu nooy nooyal nga lépp ba mu nooy wuli nga ñëpp ba ñu nooy yow rekk yaara yu noteel bokk yi nee nañu deliif jaambur ñu nee nañu deliif soppe yi nee nañu deliif ñëpp a ngi feeñaluk cofeel say noo a ngi waafa ka daw di la wanu yiw tey na bu seeni ay fi yow ñimeetu ñoo waneñ bañeel yàlla sàng sutura nanga nu sàng sutura te sàng ñëpp sutura nun ñëpp yow la nu fi neel doo nga ba nit ba bay te doo defu wiiw ba tay ku lay liggéeyal du tay du sonn yaamata digéel sab añ dafay bari te neex say wax rafet yéemu te neex te ku la gis am lu ko neex sang bi yaamata giseel dégg nu ay gisunu ay yaa nu fegal lorakoy nun ñi am noo gañe tey jàmm ku yiw dunu ko jeel dex nga gudul jeex ka nuy nuur kay fitteeka feey faaw ci yow noo taxe saay yaa nu jaxal mbég nuy ci yow noo taxe saay jaxal mbég ka leel safarlu gee far sunu lor sag defaroo nu far defar nun ñëpp yaa adi sunu mbër làq nu ngir yàlla bu teel lu nuy musal jameenu ca lu nuy jariñ jameenu ca lu nuy jubal jameenu ca lay bégal saxal nu ca yiwu nu raw dabal nu ko mbake ba jot ko jox nu ko tawat gu jóg fegal nu ko cant gu ñëw nga may nu ca wóoyee nu mbég xaroo nu mbég gise nu mbég nu yoroo nu mbég yeewe nu mbég yiwee nu mbég lu nuy defit jiite nu ca nun bu nu xam ci kenn yoon bu kenn am ci nun yoon amal ci nun yow rekk yoon lu dul sa mbég musal nu ca lu dul sa mbég faral nu ko lu dul sa mbég jañal nu ko te luy sa mbég ñoddil nu ko mu ñëw nga fam nu teg nu ca bëccëg bu ñëw bégal nu ca guddi gu ñëw bégal nu ca waxtu wu jot bégal nu ca jëf ju nu jëf sant nu ca saxal nu ci jébbulu nun saxal nu ci bàyyiku nun saxal nu ci dolliku nun loonu digal dugal nu ca saxal nu ci jébbulu nun saxal nu ci bàyyiku nun saxal nu ci dolliku nun loonu digal dugal nu ca may nu lu dul yëngu du jeex lu dara dul waral mu jeex te may nu nag nu jeex a jeex ci yow ba loo ne nu ne ca sunu juboo yàllaa ko man yal na ko def te may nu gan ñu sedd xul guy te gën lu nuy bégal ñu maase ca sunu juboo yàllaa ko man yal na ko def te may nu gan ñu sedd xol guy te gën lu nuy bégal ñu maase ca nanga nu dolli sutura te dolli ñépp sutura bu kenn ñàkk sutura lépp lu bon setal nu ca te lu nu bañ bañal nu ko lu nuy jañit jañal nu ko lu nuy defit defal nu ko lu nu nayit fekk nu ca lu nu fasoo faw na am lu nu fasoowul bu mu am mukk bu lëf waral mu am lu nu dogooti dogu ca sëriñ di gaa yi ne fi nun ngir fas ni lëf ne na fi nun te xam ni lëf niwul fi nun defal li ñuy jort ci nun ñu jort wépp yiw ci nun tey seenu wépp yiw ci nun defal li ñuy jort ci nun tey ëllëg ak lu ko gën ku rafetul njort ci nun bëgg na xëy seer ci nun lu rafetal njortam ci nun faw ba muy rëccu lu bon sunu doxas yi lëf néewul ndara ngelaw te kenn yëgul na yépp fees ak ngërëmal yàlla ak mbég yow daala man ki boppam ak mbiram ngir gaaya koy topp ak gëm di daw ak ay wut ngërëmam giñ naa ni koo kele man defuma luy maye dara waxuma luy maye dara fasuma luy maye dara ba ma ñëwee fi yow ba waaye man ak ñi ne fi man nanga nu may yow ki nu gën sa cant ak mbir mu yéwén fawa ngëneel ak gudd fan koo xam ni seenu na njariñ ci nun ba ñëw di njariñ fi nun na am ci nun njariñ bu la mu seenu defi fen man sama mbir yow laa ko diis ku fa mbiram di ma ko diis mbiram mayit yow laa ko diis mbir yépp yow la nu ko yan boole nu ak nu yanu tey ak ëllëg far mu yenu te def nu faw say kenu nuy dimbali néeg ak i jën xamu nu lëf mënu nu lëf déggu nu lëf gisu nu lëf jéemu nu lëf defu nu lëf lu dul nelaw daar ak xaram te noo ngi yor dabi kese te far di ay dofi kese koo gis ci nun dafa dese moo tax nu ñëw ne fi saram yow ki lañuy jortu ci yow tey ak nekk ci yow ak lu ñu jortuuru ci yow defal mébét mu ne ci nun sëriñ bi tey maa ngi ni le sama xolit mi ni le sama kërit mi ngi ni le duy noo ki ki ngërëm xol yi na fee ki cofeel kër yi ni del la ki ngëneel maam cofeel la ki ngëneel te gudd fan mucc yaram sunu digg ak yow na rafet fawutaluy teemu rafet na ko fekk fekk rafet loo gërëmul bu mu fi jëm loo gërëmul bu mu fi jëm koo gërëmul bu mu fi jëm ñoŋal wallif lu tilim ak lépp luy waral tilim am nga yu taar yoo gërëm yu nu gërëm lépp ngërëm may nu ca yoo yooy nu gërëm ba nu doyal tabe nga am may nuy sedd sunu xol bu yëg ñu sedd sunu xol te def nu ñuy seral sa xol bu yëkk jëm fawu kanam tey ak ëllëg lu ñu dogal yal nay lu sedd sunu xol lu nuy sawar ko bégal tey lanu tam noonu amam lépp lu nuy bëggati nun yal nañ la gën te gën ci nun tey lañu far dogal ci nun tey sunu jàmm ak sunu ndam lu nu gënal yal na gënal sëriñ bi fa wuute gënal yeneen bi fa wuute gënal nag yàlla fa waki laram yal na nu mucc ci tawat fa wuute musle ci tawat te làq nañ mépp mébét fa wuute dàq xëbulem yal na nu dàq xëbulem fab te def ku bari lem koo xam ni dootul jeexle lem tey tibb nag ci ay xëbam lu yàlla def yal na nu neex lu mu bayit yal na nu neex teel na ni def lu ko neex te sax te sax gu mu gërëm sëriñ bee di góor moo di waayi buur yàlla moo di buur waawaaw wax ju baax a baax jëf ju baax a baax paayi buur a baax waawaaw ban ba daala baax jëfam daala baax waayam daala baax waawaaw moo fi def lu baax moo fi am lu baax te am gépp baax waawaaw moo fi def baax moo fi am lu baax moo fi am ku baax waawaaw nitam ñeeka leer ngërëm meeka leer ku koy moy di waawaaw turam weeka siiw ngoram jeeko siiw ku koy topp siiw waawaaw ku koy noonu sooy ku koy ŋàññi jooy ku koy gedd yooy waaw waaw moo di kenn moom amul mbend moom raw na ñépp moom waaw waaw du xas kenn moom dafay tagge moom mbaa mu noppi moom waaw waaw du teg nit suuf bu lay gis ci suuf nga jóg faw suuf waaw waaw moo di ngeen ji seex def na seexi seex yoo am seexi seex waaw waaw dooma yee nga buur dem mu def la buur kon nga am sa nguur waawaaw ku koy jomba xaar du am mooy guddër te day dëkke xaar waawaaw woona ñépp kaar boole ñépp waar ñépp ngi di xaar waawaaw ku nekkul di buur na def waayi buur mbaamu mii ni dóor waawaaw jébul bu baax jébbuloo ka baax ku koy def di baax waawaaw jébbalul bu wóor te def nag lu wóor kon nga am lu wóor waawaaw faral dugg gaal ku duggul ci gaal ñee ku dugg gaal waawaaw liggéeyal bu baax ku sonnul du baax ku am itte baax waawaaw da wut lu baax te kuy wut lu baax da ngay wut bu baax waawaaw fabal lépp jaay jënde yàlla waay kon nga baaxe waay waawaaw xamal yàlla teel safar jëm ca teel kon nga raw ca teel waawaaw sayn jéen yéem jëfam jéen yéem mbiram meen yéem waawaaw moo ni mes ci géej ba nee ko géej mu xëy génn géej waawaaw ba muy tàbbi géej asal booba géej la guy tàbbi géej waawaaw képp kurul géej bu tàbbee géej des ca googe géej waawaaw mbakke yaa di géej gu xëy génn géej ba xëy tabbi géej waaw waaw mbakke yaa di géej gu xëy tabbi géej ba xëy génn géej waaw doy nga ñëpp kaar sut nga ñëpp kaar matut sang kaar waaw jël nga ndam li jéeg far nga jiitu jéeg gën nga ñëpp jéeg waaw waaw fulal gëm yi lool yokk fan yi lool mën nga yëpp lool waaw may nu barke lool ak mu mucc lool am nga yépp lool waawaaw noo ngi nii di ñaan may nu lii nu ñaan ku xam far la ñaan waawaaw yaa fi am lu baax te am gépp baax te far gën ku baax waawaaw te nga mépp tiit kenn dootu tiit mat nga ñépp njiit waawaaw yaanu wan lu wóor yaanu may lu wóor yaanu gën bu wóor waawaaw noo ngi nii ñi tiis te bàggoo tiis dañ nga wépp tiis waaw sant jot na lool sant war na lool may gi rëy na lool waaw far nga wépp toor dàkku wépp toor defar gépp giir waaw waaw yàlla moo di buur yaa di ngeen ji góor not nga gépp góor waaw waaw lu yàgg-yàgg lu baaxee am lu sedd xolay am dëgg-dëgg lu gën loo gis nu lu ne yàlla rafet jëfam ak léppam rafet mu yéwén rafet jëf ak njorta war waayam te gën ca lu ne ñaawul bonul tilimul aayul nayul tëjuwul tuubal sa moy sa moy geetee nga jot ci lu ne jortal ci moom ak la muy def lépp jàmm ku yiw bakkan bi nag dee ko tuumaal ak loram ci lu ne bakkan dafay digle aw ay tey teree def yiw yàllay terew ay di digle yiw ci lépp lu ne mboolem lu koy sas ci waayam lépp yàlla na ko fab tabal ci nun faw biir ak biti may nu lu ne cantam nga yàlla na ko fopp jëbal nu ak ngërëmam lu dul tuxootit ci xar baaxam yi ëpp lu ne dexu ngëneelam gudul fer mukk yàlla na ko fopp saxal fi nun dàkk nuy yokkoo ka yokku lu ne la sedd xol lépp biir ak biti yàlla na ko fopp jébal nu jébbal gu sedd xol nu làq lu ne waamew tiraanga wulóoral fépp yàlla na ñëwag lu sedd xol luy waral xel yépp dal ci lu ne mucc ak mbég ak suturaak ak cant yàlla nañu ñëw ànd ak lu ñëpp ni ngéej ndam lu ëpp lu ne fu nee ngi taata na kay yaakaari waame yi ñor na fépp fees ak lu gën loo gis gënal nu lu ne sëriñ bi yaa baax yaa yéemu yaa jeex yàlla yaa neex neexal nu mbakke yaa sell sellal yaa màgg màggal yaa jiitu jiital jiital nu mbakke yaa ame tawféex yaa maye tawféex sarax mu tawféex bu yéemu mbakke màgg nga màggal taaru nga taaral yegg nga yeggal yeggal nu mbakke um nga ubal nga raw nga rawal nga doy nga doyal nga doyal nu gën nga gënal nga set nga setal nga way nga wayal nga wayal nu mbakke nga wéral nga fes nga fesal nga jum nga jubal nga jubal nu fay nga fayal nga fajal nga jam nga jamal nu jamal nu mbakke fay nga fayal nga fañ nga fajal nga jam nga jamal nga jamal nu mbakke salaamu ajjana jaangi fu tedd faa ngi fu yéemu faa ngi fu sell faa ngi jongama yaa ngi ñu tedd ñaa ngi ñu yéemu ñaa ngi ñu sell ñaa ngi tedd nga jaangi tiraanga jaangi sutura saangi te jàmm jaangi yonent yaa ngi malaaka yaa ngi saxaaba yaa ngi wali yaa ngi yu xumm yaa ngi yu takku yaa ngi yu soq yaa ngi yu tand yaa ngi ak lal yu yaatu ak kër yu yaatu lu mag laa ngi ak ñam wu dul jeex ak ndox mu dul jeex ak mbég mu dul jeex lu satti laa ngi loo bëgg a gis-gis loo bëgg a mus-mus doo ñàkk tus bis sa cant gaa ngi sa soxna soo gis doo gis lu muy def doo ca gisul das day reeni maa ngi sa dee ja day leer jëm jëyit leer nga dégg sa xol leer lu daq laa ngi kër ya wurus la lal ya wurus la lu fa ne mbég la tedd nga jaa ngi way ya ñu fay way suuxal na yii way te dàq yii way jaloore jaa ngi ndaje mu dul tas foofa la am ba file amul tus cam àll baa ngi garab ya day naat seeni xobit naat ña koy gisit naat naataange jaangi cëgg ya day yoor mel ni lu ñuy yoor ci yàlla gi ngóor gaa daraa ngi kër yaa nga jokkoo garab ya rabboo waykat ya dengoo naa dëkk baa ngi kenn du tuxooti kenn du lorooti kenn du xulooti ngir soppe yaa ngi dee wey na faw lor wey na faw bor wey na faw yërmaande jaa ngi pal gaa ngi nii nag ndég maa ngi nii nag yëf yaa ngi nii nag lu safe laa ngi yaram ya day neex xol ya dañuy neex faw li lee neex karaama yaa ngi loo mën a am yow te ñàkk lii yow amula la fi yow sa tono jaa ngi yal na nu am lii lépp ak la gën lii te def lii nag dayo baa ngi lii ñor na xomm ku ci ni yemm war ci ni yomm ngir yàlla jaa ngi ka bind lii rëy kay maye lii rëy li muy maye rëy lu gën wataa ngi xol bu ni guy te tal ñay jam ni béy jaa ngi ni dàkk ci pal taxoo ki ndimmal cay ak dalu xel daraja jaangi mag du ne foofa ndaway ne foofa te féetewoo fa mbég solo saangi bala nga faa am ndam lu ñàkk ndam ndam soppiku ngi bala nga faa dem def ndaw lu am ndam lu ñàkk lëndam soppiku gaa ngi yaram wa day xees fecc nga far fees del woyof yeef lu jafe laa ngi sangu baset nag witti rafet jag sol yu rafet nag soppante baa ngi ñu hubbi say kër wan la sa waa kër ñu tëb la far sor te naa la yaa ngi ndax noo la namm am yaanu namm ku mën a namm gisante baa ngi jàppante baa ngi duggante baa ngi soppante baa ngi àjjana jaa ngi ate ba daw na ndogal ga daw na muslu ko wéy na moytu ko wéy na gantu ko wéy na nangu ko jot na gërëm ko jot na te mer ko wéy na ko mere yàlla réere na yàlla te réere yàlla màgg na rëy na kenn du def lëf yàllaa di def lëf kuy mer la muy def ndofam ga rëy na lu kenn dul faj mer ko lu muy faj xul ko lu muy faj dëggal ko dong na gërëm ko yow mii nangu ko yow mii teree ko yow mii yaaram yare na yaaram dafay ree lu dikk muy ree lu dellu muy ree ngoram géwér na yàllaa nu sàkkoon yàllaa nu bindoon te ku la bindoon topp ko war na ku réere yàlla du topp yàlla kuy topp yàlla xamal ni xam na ku sakk jaamam te bind jaamam te moomi jaamam xam ko rafet na yal na nu gëm nun yal na nu am nun yal na nu def nun la nee jum na la yàlla atte yàlla na atte nu sant atte boobale mat na li yàlla dund amoo ci ndënd yal na nga dund yaa war a dund jànga may ak jak dégg nga mayey bu ma amoon njëg dinaa la jënd sang bu nekk mel na nu nekk te benn sang nuróowul ak yow sang bu dul yow dafa yoru yiw yow yoru la yiw danga di aw yiw sang da daa baax te am fi ak baax yow nag dangaa baax ba faral di ak baax yow way la yombul ngir xam la yombul nit nga ku yombul ngir jàll nga ak baax sëriñ bi raw nga sëriñ bi dem nga sëriñ bi wéy nga ba jàll fépp ne nag fa yàlla ne nag ci yàlla jee nag ci yàlla ëpp nga bopp yow fa nga nekk yàllaa fa nekk kenn du fa nekk ku dul yow ak moom mateefu faane nereefu faane bu kenn fas ni man nii dama juum yow rek yaa wéet te metti ak wéet ngir amul aw xeet sennati déedéet kenn du saw xeet yàlla di saw xeet doo ñàkk tee wéet doo mën a tee dëgg sëriñ bi fulal nawet bi fulwaa nawet bi te may nu jàmm mbay ni ñu barkeel baykat yi barkeel nawet bi barkeel jàmm nu jëmm mbay mi na barkeel baykat yi barkeel nawet bi bàkkeel jàmm ni jëm dugum na nangu gerte na nangu ay bañ a yëngu bëtul ni temm na ñépp jublu ci yiw di muslu ak mooy tafarlu ci la nga namm fan yi na gudd yëg yi ni gadd ku nekk tedd yaru ni nemm yaram yi nay wér ku ne xamu wér tey def la koy war nga di nu sàmm te rikk mbàkke nu barke def nu ñu tekki ñu bari war ma lay tee tekki na nga ko teggi luy tax nu tekki neenu ko yomm mébét mu aw nit diraasa kay wut na ca sunuy gët jëkk ni yomm bindee nu tawféex sakkul nu tawféex daqal nu tawféex jàpp ko may nu bu lor jógeeti fenn jigeeti may nu texeeti fawal sa jàmm jañal nu ibliis ak gaayi ibliis fawal lu nuy tiis seet nu jàmm yal naa xamu cant man goo xam ni gii dana suul cant ku nekk te genn cant dootu ko suul yal naa de ab sant kat goo xam ni bii dana suul ña sant ñëpp te sant kenn dootu ko suul yal naa de ab sant kat boo xam ni bii dana suul ña sant ñëpp te benn sant kat du ko suul kafar la yoowa ba yoowee ween xëttitu ñay yal nay faral nun ba muy not ñëpp faw wakamool kay def ci ñaari dërëm aslëf ba ñaari dërëm ñooñee di am miliyon nun ñépp yal nañu xool loolee mu def nag ca xaalis soosa yal na ko def ci lépp lëf lu nu am nun ci alal ak i tool nawet bi yal na ci barke bi yàlla wàcc ci bu rëy ay yërmande yi boppam ak barkat xadiim bi na ci jantub cant fenke ci nun buy tax ñu ñeenu ci gépp wet ca lëf du ko suul kasaytu xam-xam bi ak sañ-sañ bi yal na am juboo gudul dañ ci moom ak may gu gën taratul ka perte jomb ci moom ak banque yal na mu may muy musle ci perte faw ak banque musle ci ndóol ka a jomb ci moom ak lott yal na mu may muy musle faw wa ci lott ak jeele musle ci ñil ñay sotti yal nañu sottee sotti sotti gu tar ci tool ak too kër ak kër mbir mu dem dayalool ñay xëppi yal nañu booloo xëpp xëpp ci nun xiiwal gu rëy gu ne cas xiiwal gu rëy gu ne suul sëriñ bi yow na ngeen may ngir yàlla ak yonen ba tey xam-xam bu nuy tegali mooy fawaka boolee ki ndigal ngir nit lu xam-xam te bawul li yàlla miy tere deful li yàlla miy digle asal teru li ij gi sax dalul ku dem fi ab jaxam dërëm du la jariñ amul dërëm moo lay jariñ moo tax ku xam te jëfewul xamul amul koo seeru xam na ab dërëm ba noppi tey wutub dërëm doo gis ku doy loo xam dërëm walis wutub dërëm wutal kem li nga jëf rek nga xam kem li nga am rek nga xam li nga jëful du li nga xam du li nga xam yeewul jógal donte dangaa xamoon ba xam la yonenub yàlla ba xam ak la malaaka yëpp ku xam te jëfewoo laf nga xamul donte dangaa jëfit ba jëf la yonenub yàlla ba jëf ak la malaaka yëpp ku jëf te tël loo laf nga jëful boo sellaloo nit jëpp jëf te xama boo na dee si def xalak sa jëf yi nga jëf kon it xel warul la dal addina ak dex la gu xóot ku tàddi nag ci dex gu xóot te génn gu nay reelu tuut ba génn mucc te labul